adduna ndekete kat nitee koy doxal du yeen daan wax de ay baati nag yooyu nax yooyu de du loolu de mm-hmm. ndekete foo déggee yooyu rek mm-hmm. jafe-jafe daan mm-hmm. su jafe-jafe amee rek nit ñi dellu ci nite soo delloo ci alxuraan noonu la ko yàlla jàngale suñ demee ba bis penc yàlla mu wax is tabarra alladina tubihu min alladina tabahu wa raaw la azaba وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا الله يوحنا سنجي بيس بنج ñañu topone dañuy wax ñaleen nga xamne ma مثال ما يعني تدمج في علمك